démb ci talaata ji yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 ñu bari ci askan wi dal di yeewu ak njàqare tiitaange waaye tamit ab xibaar bu doy waar la li ngal di xew ci benn bus Tata démb ci suba gi de ab bus Tata numéro 67 moom daal ci lañu dal di nemmeeku ne ay booru fukki waxtu ak benn ci bëccëg ci lañu dal di nemmeeku ne ab nit dafa dal di am ab malaise ci biir bis bi dal di fa jaare ñàkk bakkanam mbir yi mu ngi dal di xewee fële nga xam ne moo di ci rond-point cité des eaux foofee la mbir mi dal di xewee ci biir bus bi ginnaaw bi nga xamante ni daanaka ñu ngi tollee ci waxtu woowu li ab nit moo daal a bu mu loolee daal yóbbee ñi nga xamante ñoo nekkoon rek ci biir bus bis bi ñoom tamit daanaka ñu ci bare bari dañoo dal di tasaaroo waaye ci ginnaaw bu police dalee di yegsi ak ñi nga xam ne ñoo di service d'hygiène ak waa sapeur pompier ci la saytu corps boobu la ñàkk bakkanam ak lépp loo xamante nii yoroon na ko ci ay papier wala lu mu ti doon waaye ci li ñu jot a fekk ci moom moo di ñeenti téeméer ak fanweer ci suñu koppar ak benn téléphone portable loolu la ñu dal di fekk ci moom ci téléphone boobu la sax moom mujjee nekk ab jumtukaay ci ñoom ngir rek ñi mën a xam waaye tamit ràññee ki nga xamante ni moo di boobu la victime dal di ñàkk bakkanam service d'hygiène ginnaaw bu mu jëlee di yegsi ci la ñu daal di rek ñëw ngir rek désinfecté corps bi ak bis boobu nga xam ne fa la passager yi daal di nekkoon noonee ci la ñu daal di jël corps bi daal di ko yóbbu ci hôpital Aristide Le Dantec ci loolu nag am loo xamante ni daanaka moo gën a jaaxal ñi nga xam ne ñoo di askan wi ndaxte foofii la ñu war a def li nga xam ne moo di autopsie bi faatu gile daal di amee ci contexte bi ñu toll mu di fi mbaas mi di covid ci crise dëgg sax waaye ci li gën a waral mbir mi mooy ñu bare bari ñi nekkoon ci biir bus ba dañoo daal di tasaaroo laataa ñuy a xàmmee la nga xam ne moo war ci wàll wi yi ndax bu ñu dellu si ci fay yi nente nañ waa ji ci source yi nga xam ne suñu mbokk réew mi quotidien daal nañ ko fësal mu ngi daal di rek duggee war di ca wakaam moom nag mu ngi doon liggéey liggéeyub imprimeur loolu moo du liggéeyam maanaam nekk ab imprimeur ñàkk bakkan gi ni mel daal di amee ci contexte boo xam ne crise dëgg la ñu daal di nekk mu di tembo ak mbas mi di covid 19 tax xel yu bare bari daal di xaw a jaaxle ci mbir mi ba léegi mi quotidien ci bërëb boobule mu daal di amee mbooloo bu takkoo takku ñu daloon di nekk ci xool lan moo xew ñenn ñi di utiliser li nga xam ne moo di seen ay téléphone portable ngir rek jéem a filmer li di seen bi waaye daal nekk na loo xam ne xaw na jaaxle teewul ñenn ci ñoom daal a nga xam ne ñoo nekkoon ci boobule bis daanaka ñëpp a riir mër daal di tasaaroo kenn xamul fan la ñu nekk ñenn ñi nga xam ne ñoo di askan fa nekkoon jàpp ne waroon nañu mën a def seen kéem kattan ba téye leen ngir rek ñu mën a xam ci lan la ñu nekk ak lu ñëwal seen wér-gu-yaram ndaxte bis boobu li nga xamante nii moom moo yeboon waaju ju tombeek crise bi ñu nekk mën a lié ak faatu googule moonte ne autopsie bi ba léegi si walagu ñu du ñëwal lan moo faat boobule bakkan nekk ab nit boo xamante ni mu ngi am lu toll ci ñeent fukki ak juróom-ñeent ñàkkee bakkanam ci circonstances yu xaw a doy waar dëkkoon ca diwaan Wakaam